xam ñaata employé lañu fa def deux mille huit cent quatorze yi déglu leen baax li may wax ak trois cent vingt sept prestataires boo ko boolee mii trois mille cent vingt deux te moo ne bi ñu bëggee yóbbu bis yi ci tabaski dañoo obligé jëli ay militaires ndax chauffeurs yu doyul est-ce que yéen a dégg li may wax waa personnel boobu ñan la te ñëpp ay yi lañ am nag toog. ndax directeur bu ñëw yóbbu frigo indi ay nitam directeur bu ñëw yóbbu finalement congélo yi fees chambre froide yi fees lépp fees masse salariale 1,2 milliard par mois waaw ngeen yaakaar ne ngeen te xam ngeen ne est-ce que xam ngeen ne suñu employé yooyu moom la ñuy comp di jox saa su nekk fay déficitu exploitation bi de dix 18 milliards parce que service public la mbokk yi Dakar dem dikk ci situation boobu noonu lañ ko fekk dette bi mu am ci ay affaire fisc ak yooyu rek pour te dire que dafa bokk ci daanaka ñu daawul fay quatre vingt 95 milliards chiffres yi may wax yëpp yu ñu consigné la teg may invité presse bi ak journaliste ak sénégalais yi lii mooy débat bi nañu wax li nga xam ne moo yàqu ci réew mi te ñu wax ñun fan la ñuy jëlee alal ju ñu koy defaree ñu nekk ci waxtaan yooyu moo gën diversion yi ñeen ñi def nga xam ne ay jouekatu série lañu kon jël nañ ci nag ay mesures yu bëri nekk di wàññi waaye ñëpp xam nañ ne doyu nga dem fu mel ni AIBD AIBD xam ngeen euh, lan mooy budget 22 milliards waaye lan mooy recette am 7 milliards donc quinze milliards yi fu mu koy jëlee maanaam day jëndee juróom di jaayee ñett pour ngeen comprendre état moo koy complété 15 milliards ñun bi ñu ñëwee ci lu gàtt ciblé nañ ci ay contrat ba liggéey ko ba nekk di ko arrêté ci ay contrat yaa ma neex yoo xam ne amaluñu benn njariñ xam ngeen ñaata la ñu économiser réew mi ci AIBD képp laa wax 63 milliards 63 milliards c'est-à-dire man di may wax yëpp ci sama ministère kese la yeneen ministres yi énergie miine autre suñu génnee bu ñu waxee ngeen ngeen taf seen gémmiñ c'est-à-dire fu fuñ jaar dañ ko cannibaliser ñoo raw cannibaliser ñoo raw ay ay kaña ci tool kon lii mooy vrai débat bi ñoom lii la ñuy bañ ñu leeral ko parce que xam na ne bu ñu jëlee assemblée bi mais dañuy installer <laughs> haute cour de la justice te xam naa ci liste bi sax am na ko ci gars yi ciblé ne xanaa kii mooy jiite haute cour de la justice parce que am na fu mu jaaroon ak ñoom xool leen suñu liste bu baax a baax léegi haute cour de la justice parce que instant yi li tax ngay gis ñenn ñi di balballu di tëb di wax xam na ne mënaguñ leen a jàpp ndax seen mbubb bi ñu am te te Macky Sall laataa muy dem daa soppi cré yi ba mënu leen topp en ce ci condition yi pour te dire que ñoom dañoo dañoo def seeni mbir ba pare xool naka la ñu koy maquiller encore une fois bërëc mais haute cour de la justice dina taxaw te ñoom ñëpp dinañu wuyu benn par benn kenn du rëcc ca kaw ba ca suuf parce que li ñu def nii alalu askan woowu ñoom li ñu jël bu ñu ko delloosee ñu régler problème yëpp ndax malgré situation catastrophique bi ñu fi fekk ñu ngi continuer di tenir réew mi muy dox ndax ingéniosité équipe yi ñu yore ñu leen rendre en tout cas euh, ñu leen di féliciter di leen encourager moo xam équipe bu finance la moo xam équipe bu économie la moo xam ministère yi ak directeurs yi liggéeyu yaxanal bi nga xam ne ñu ngi koy def parce que bala maa dee ñu naan nañu réduire train de vie de l'État mais ñun bi ñu ñëwee ba léegi on a fekk réduire le train de vie de l'État moo ñu permettre ñuy continuer AIBD da nga doon fekk budget voyage mais c'est extraordinaire ce que ce que ce que je suis en de vous dire cest à dañ dañ doon fo ci alalu askan wi parce que budget voyage ci lu gàtt rek ñu def lu mat 80 millions ñun même période c'est-à-dire premier semestre 80 millions ci voyage AIBD maanaam 1er janvier ba ba ba ba 31 mars ñun avril ba août comparé à ñoom économiser nañ ñun 55 milliards millions astafurlah kon pour vous dire que. ci dynamique bi ñu nekk noonu lañ ko defee ci téléphone bi ils étaient à 19 millions par mois ñu réduire ci 10 millions déjà te ça va continuer encore une fois c'est ça les vrais débats ñoom loolu la ñuy bañ moo tax yii ñuy déposer ay recours yeeg yooyu yëpp diversion la te ma wax leen am na si ñoom ñoo xam ne gëm naa ne bëggu ñoo dem élection de ñun ñun duñu xalaatuñoo def recours parce que dañoo bëgg ñoom ñëpp ñu boole leen mbër muy nu mu ko doon waxee ah seen ba nee na way juróom da leen daan boole bañ mat fukk mu làpp leen dañ leen bëgg a boole ñoom ba ñu dajaloo ñi moom dakaarak ak ñi doon wax ñooy chef de l'opposition ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ñooy borom fuuta tey ñu ñëw dàqatu ci liste nationale yi ñëpp la ñu boole duma dañuy dañuy bëre par force ñi doon forcer seen boobu waajal seen i saak pour dugg kaso sax dañ ne leen da ngeen di bëre ba pare non day mënul ñàkk parce que mbir mi dina neex de léegi nag ñoom seen problème mooy fan la ñuy campagne ak ban xaalis la ñuy campagne fan ah ban fan la ñuy dugg ñoom ñoom lu ñu am ci sécurité lañ ko nar a def fan la ñuy dugg di campagne di ñëw di tànqal nit ñi ak naan lañuy ñuy joxe xaalis xalaatuñu ko surveiller leen bu baax de. parce que bëgguñ dem élection yii ñi def nii yëpp loolu la kii wax na ko mais feuille A4 bi ñu ne la nañ ko def A6 nga xam ne bii dañ koy xaaj 4 def ci photo bi def ci logo yeeg yooyu xanaa voté du voté rek waroon nañ ko sax mën a def bulletin unique ñenn ñi ne non du ci daal suñu yoon nekk suñu am na ñoo xam ne joxu justificatif de yoon nekku ci maanaam débrouillez-vous pour trouver 7 8 milliards de plus ñeneen ñi ne non. dañ ciy def photo te ñun suñ tedd liste yi xamuñu leen waaye ñoom ñan la Macky Sall xamuñu mais problème bi mooy bëgguñu fu ñu dem gis photo Sonko mu leer nañu macha allah mu sell bi su ko defee xam na ne askan yi buñ koy jël duñ ci ànd ak sago te loolu sax mënoon na doon seen atu parce que xam naa am ñoo ne bëgg nañ ko boo xam ne au lieu ñu jël ko dugal ko ci enveloppe bi tam ñu jël ko yóbbaale ko pour te ko segg mais pour vous dire que juste ñoom ci caaxaan yi ñu nekk mais bëgg bëre bañ bëre. nii lañ ko mën a toppee nga ñëw ci PSD bi ma doon wax fa yi weesu c'est-à-dire ñii ñooy askan woo xam ne dañoo ñëw ne dañuy leb ci turu Sénégal 467 milliards pour tabax ay tali waaye waxuma intérêt yi de mais ñoom nee nañu ñiy gere leb bor boobu noonu maanaam ñi ko doon gere seen ay commission ak seen ay frais de gestion cent vingt trois milliards lay doon waaw léegi ñun dañoo leb quatre cent soixante sept milliards pour fay pratiquement plus de presque six cent milliards cinq cent quatre vingt dix et quelque xam nañ niñ ko defee de te pour leen wan ne ay tappale la frais de gestion yi dañoo ubbi beneen compte bu bees loger ko fa waaye ñii bëgg nañ réew mi 123 milliards lan nga ci mën a def c'est-à-dire que frais de gestion yi rek c'est 24 pour cent alors que en temps normal c'est entre 3 et 4 pour cent multiplié par 5 moo tax ñuy tëb di wax ni ñoom ñëpp di xam nañ li ñu def de te d'ailleurs <laughs> am na ñoo xam ne ñi amul ñi amul titre ministre commencé nañ wuy ji ak ak ak ak ak leeral de. bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yëgul am na ñoo xam ne nag daw nañ génn waaye dinañ dikkaat bu soobee yàlla pour vous diir que rek buñ ko doon topp benn par benn nga ñëw di jënd matériel handling maanaam bu ngeen demee aéroport yéen ñi ñi fay voyager chariot yi ñu utiliser keet yooyu ñi évaluer ne huit milliards lan soxla yow ministre bi nga ne non non je vais acheter valeur vingt trois milliards déglu leen baax li wax te huit milliards lan soxla ci matériel. waa jënd matériel pousse pousse nga ne danga koy def secret défense ñi dem ba fexe ba li jënd seen cachet secret defence ne ko ci teel joxe ay marché fictif avance gars yi plus de presque léegi mu mat deux ans ku ci ko waroon na livrer entre trois et six mois am na si ñaar ñoo xam ne pën a livré guñu ko te jox nañ leen lu mat sept milliards marché fictif la ma tudd ko ci rajo bi xëy deux jours après ñu ne ma waa ji dawoon am am na ko mu woo naa ko bàyyi sama wax sama ministre mu bàyyi man jàpp ma ko de li mu def laa jàpp c'est différent awma benn problème ak moom li jëntuwu ko mais suñu xaalis lañuy topp enquête baa ngi en cours te dina leer nañ kon euh, lu leen wax ci tooxi doone yi ñu def un peu partout mën naa ne leen ne liñ leen waxul moo ëpp fuuf parce que nag dañu jël suñu temps di ko defar benn par benn kon euh, ci li ma bëgg a wax mooy askanu Sénégal am na opportunité cette fois-ci comme ni ma ko waxee woon fan yee euh, keroog ci jouru set setal bi système bi moom tër nañ ko ba rey ko ba noppi suul rek a des gas ba mu xóot suul système bi laa wax de balaa ñuy génn naan maa wax ne damay rey nit ñi gas suul comme dañoo am léegi benn benn benn ay quelques journalistes yoo xam ne moom ils sont tellement tellement mécontents que da ngay fàtte ne sax ay journalistes lañ bu ñuy wax damay ragal ne seen kër yi day lâché mais dama ne système bi rendi nañu ko ba pare rey nañu ko suul rek moo des dama bëgg na ci législative yi na askan bi jóg wan leen ne bëggatuñu sax ngeen teewal ñu ci pencum ndawi askan bu waree am ay quelques députés na doon liste yi kenn xamul mais ñii normalement waruñu parce que dañoo jàpp ne ñoom war nañu mën a daw làqatu assemblée nationale am immunité parlementaire yow yàlla sagal la nga jaar fu ne nekk président assemblée nationale nekk ministre de l'intérieur nekk ministre nekk premier ministre nekk président de la république wala ba ti ko bëgg a nekk député waaye kii kii day sërmëri jëmale ko wala cest à que dafa am loo xam ne mënoo ko comprendre léegi nag wax ji leer lenn la de ndax dina ñëw campagne seen biir ñoom ñaar sax laay woon ndax dinañ ñëw campagne si wala ki exilé woon moroomam ak ki exilé boppam ndax dinañ ñëw campagne si kon euh, dama bëgg rek euh, euh, encore une fois ci fu may daaneelee mooy ñu con euh, j'invite tous les patriotes tous les patriotes temps yi focus bi saf na lool dafa mel ni opposant amul ci réew ça veut dire que ñun xëy na ñoo leen di may bës bi ñu am fi mu ne nii nag focus boobu dama bëgg ngeen orienté ko dama bëgg focus bi ngeen jël listu Pastef bi di ko seppi benn par benn di wane gars yi bu ngeen ne Amy ngeen wax ci moom nit ñi xam ne kii kat lii ak lii la doon def fii la jaar buñ ne Mbène Faye gars yi xam fi mu jaar bu ne Cheikh Thioro Mbacké loolu mooy focus bi nañu focus ñun ci la promotion de nos excellents futurs députés gars yeneen yi nag nan leen bàyyi fële parce qu'ils ont presque tous des cœurs brisés kon mbokk yi foofu laa doon daaneele di leen wax ne rek euh, Euh, campagne bi dina neex te nag daa am loo xam ne ñu ngi koy waajal parce que Pastef moom la mu daan doxalee lay doxalee ba léegi mooy financement wu parti politique nañ ko daan defee lañ koy defee kon na askan wi waajal na patriote yi waajal te xam ne am na lu président Ousmane Sonko ak équipe rawatina équipe des finance sumb ba togg ko ba pare ci fan yii di ñëw dinañ